nii di ko jëmale ci askan bi mm-hmm. waaw pour bañ a guddal nag maa ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yi mm-hmm. ay ca ñu ngi ñuy yëgal léegi nii ne assemblée nationale euh, installation bi incha allah ça sera le lundi euh, 2 décembre 2024 bu soobee yàlla lundi bii ñu jëg dëgmal bu soobee sunu borom euh, moom la ñuy euh, installé première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élue. À la suite de la proclamation officielle ce mercredi 27 novembre 2024 des résultats définitifs euh, des élections législatives du 17 novembre 2024 par le Conseil constitutionnel, Le président de la République a signé le décret numéro 2024-3290 du 28 novembre 2024 fixant au lundi 2 décembre 2024 la date d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Présidence de la République le 28 novembre 2024, le ministre conseiller porte-parole de la présidence. maanaam euh, li lee nga xamante ne moom moo di euh, décret bi waroon a biral installé gi ñu war a installé ña nga xamante ne ñoo war a euh, teewal li di askan wi ci pencum ndawu réew mi président signé na ko tey Ousseynou Ly moo ñu ko xamal di xamal nit ñi ne lundi incha allah député yi danoonu teew foofu la ci assemblée nationale def seen première session def seen première session Euh, ordinaire bu soobee sunu borom lundi le 2 euh, décembre 2024 donc ñun ñoo ko yëggandoo ki di président de la république signe na boobule décret tey jii nii donc lundi bu soobee sunu borom député commencé seen liggéey incha allahu euh, rabbi foofule ca. Assemblée nationale donc ñu jëlaat yeneen téléspectateur ci ligne bi 77 227 12 12 mooy numéro bi ngeen di woote bu ngeen bëggee bokk ci bile live bi fàttali leen rek ne date bi incha allah le lundi 2 décembre 2024 gannaaw ba conseil constitutionnel joxe li lee nga xamante ne moom mooy seedi résultat gannaaw aussi ba ñu publier li lee nga xamante ne moom moo di résultat provisoire yi euh, waa PASTEF am li lee nga xamante ne moom moo di cent 130 député conseil constitutionnel ñëw dëggal loole euh, kile di président Diomaye Faye biral na wala signé na Euh, wala boo xaatim na décret boobelee nga xamante ne moom mooy euh, vraiment fixé euh, installation wu lii lee nga xamante ne moom moo di député yi lundi bi ñu dëgmal bu soobee sunu borom. ayca ñu jëlaat keneen 77 227 12 12 allo. allo Vito. waaw kooku. man la Boubacar Balde depuis Espagne. Boubacar Balde noo def naga waa Espagne. waaw Espagne mu ngi fii rek di alhamdulilah yoo laay déglu Boubacar. waa Girero Bokar laa quoi boor Kolda laa dëkkee. jërëjëf yoo laay déglu. naka liggéey bi foofu naka waa Sénégal. ça va a ngi si jàmm ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah. naka Moustapha Moustapha Diakhaté di gars mhm. mhm. li mu wax yaa ngi koy wax nii que même moom dafa am ñu bu ab dafa am ñu bugg a Sonko. Mm-hmm. dafa am ñi nga xamante ni moom nii nii mun ko mun nañ ko jur waaye ñooñ bugg nañ Sonko ñooñ wootal nañ Sonko waaye moom mun munu mun waroo wax Sénégal yëpp de ñu wootal Sonko yëpp dañu alku loolu baaxul. Mm-hmm. parce moom mag la waaye mag bi moom moom xam naa ne fu muy mujjee du baax parce que moom koo xam ne nii dafa saaga yonante bi est-ce que kooku mbiram mbiram mun na baax ci àdduna. Mm-hmm. voilà gis nga doomu aadama lépp loo def nag sa bopp nga ko def. Mm-hmm. waaw parce que moom nii moom xam nga moom noo moom nee moom moo assume boppam moom lu mu wax moo ko wax. Mm-hmm. waaw dañ ko te ñaar ñaari weer no waaw ñaari weer ferme. waaw ñaari weer yooyu yoon dañ ko waroon génne moom mu nekk ci mbedd Dakar yi bis bu ne ñu xëy ñu ñu ñu mu limpee mbedd yi ba mu set. Mm-hmm. dégg nga moom moom lool loolu lañ ko waroon def parce que moom mag boobu mag boo xam ne nii mag bu amul benn ceer moom musu moom wax yu garab rek la doon wax ci Sonko mm-hmm. robel la ñu ànd ak Sonko robel la ñoom dañ ko war a kii taxaw nee na ñu ànd ak Sonko yëpp dañ dañ leen war a am na ñoo xam ne dañ dañ leen di war rëy am na ñoo xam ne nii dañ leen di war a teg am na ñoo xam ne nii dañ leen di war a yóbbu seen est-ce que moom moom est-ce moom amul ay doom mm-hmm. parce que nit boo amee ay doom waroo waroo ñaanal ay doomu jaamur ay dee loolu Mm-hmm. parce que moom nii xam moom moom mag la waaye moom xamul fu muy mujjee ci adnam mm-hmm. voilà waa yàlla ñu yàlla defal jàmm nag mm-hmm. jërëjëf barke salaatul fatiha allahuma amin am fa liggéey liggéey liggéey bu rafet nag sama waay billaahi leen di déglu yéen waa jërëjëf jërëjëf jërëjëf ma waaye ñoom Baye Assane Mesere ak ñoom Cero Mandela ñoom ñëpp ñoom Moustapha Diop leen ñoom ñëpp maa leen di may Baye incha allah barke salaatul fatiha na ngeen nekk ci jàmm ak salaam dégg jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Tito jërëjëf waay merci waay. ayca 77 227 12 12 dee leen aussi di aimer live yi da ciy baax bu ngeen di seetaan live dee leen aimer live bi day may doole chaîne bi euh, dee leen di dugg chaque instant di dugg ci chaîne bi di xoolaat di dundal di seetaan vidéo yi vidéo boo leen gis mu tuuti. ngeen dugg ci chaîne bi gis vidéo yi view yi tuuti dugg leen ci duggaat ci duggaat ci duggaat ci ba view yi bëri juste ngeen def ko parce que 313 euh, benn doole la am muy yéen ñi nga xamante ne yéen ay internautes yéen ñi nga xamante ne yéen ay téléspectateurs man dama koy wax ma ne 313 euh, amuñu ay internautes amuñu ay téléspectateurs famille la ñu am ndax ñun ak ñi ñuy seetaan ñoo bokk ndey ay ba ndey ak baay ñii suñuy yaay lañu Euh, may nuyu ñëpp ñi nga xamante ne vraiment dañuy woo ne man sa yaay laa euh, ñu ngi leen di seetaan te ñu doon ay soxna vraiment ay soxna yu yu yu baax a baax a baax a baax ci réew ci àdduna bi wërngël képp nuyu ñoo xamante ne ñii suñuy papa ñii sax suñuy maam euh, lañu ñii sunuy rakk lanu ñii suñuy tànt lañ ñii suñuy bàjjan lanu kon mun naa wax ne 313 seen yëf yi bopp la yéen yéen ko moom Euh, fekk yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ci gis seen bopp bu ngeen ko seetaanee kontaan ñun yéen lañ fi nekkal yéen ñi nga xamante ne yéen ay kontaan ñeneen ñi nga xamante ne tam ñu seetaanee tamit mer garaawul ñoom tam ci lañ bokk ndax dëkk dafay am ñi nga xamante ne de kër